jeewali iblisa isnataytahu biya wali alhamdulillahi wa kafa wa salaatu ala man istafa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbokk jullit yi ñu ñëw ci dal na ci ndénkaaney Seexul Xadiim radiyallahu anhu jëm ci taalibe mi sëriñ bi di wax ne yéen dongoy yéen taalibe yi maa ngi leen dénk ragal yàlla mu màgg mi ndax kat alxuraan wax na ne ki gën a tedd ci yéen mooy ragal yàlla sëriñ bi daal di wax ne martabay ragal yàlla bi ci gën a kawe mooy moytu lépp loo xam ne day indi loraange ci diine sëriñ bi ne maa ngi leen dénk ngeen sàkku xam-xam ndax xam-xam mooy yoon wi nga xam ne ci la jaam bi jaar ba mën a ragal yàlla mu ne na ngeen xamal seeni ndaw seen ak njaboot li yàlla waral ci ñoom li yàlla farataal ci seen kaw bépp mu kallaf nee na yéen nit ñi yéen sama nit na bàyyi xel yàlla na ngeen topp yàlla ci lim leen digal waaye bu leen wuuteeg ndigalam na ngeen moytu lépp lu leen yàlla tere fii leen yàlla tere bu fa xoole bu leen fa séen waaye fi leen yàlla digal bu leen bu fa xoole na leen fa séen na xamal seeni doom na xamal seeni soxna na ngeen xamal képp koo xam ne yéen a ko yilif li nga xam ne moom la yàlla farataal ci moom seen bi ne bu ngeen ko deful ëllëg bis penc dañ leen ko laaj sëñ bi mi nga leen digal ngeen fekk ñeenti gàllankoor yi ngeen moytu ko mooy ngeen moytu àddina xam ne luñ ko dàq-dàq duñ ko jot ñu moytu mbindeef yi xam ne ñi ci ëpp dañuy dox sa diggante yàlla ñu moytu seytaane xam ne moo nasaxaloon moo woon sunu maam aadama alayhi salaatu wasalaam ñu moytu suñ bakkan xam ne lépp lu nit ki def ci ab safaan bakkan bala topp sëñ bi ne maa ngi leen dénk yéen sama nit ngeen sàmmoon sàmmonteeg juróomi cër yi ndax képp koo xam da ngaa bëgg a ragal yàlla sunu boroom faaw nga sàmm juróomi cër yi da ngeen sàmm seen bët bu leen ci xool lépp lu xaraam da ngeen sàmm seeni nopp bu leen ci déglu lu xaraam na ngeen sàmm seen làmmiñ bu leen ci wax lu dul lu dagan na ngeen setal seen ab xol bam set wecc waaye seen biirit bu leen ci dugal lu dul lu dagan sëñ bi ne na ngeen bàyyi xel na ngeen yeewu yéen sama nit ci seen bés bi da ngeen xam ne maa ngi leen di moytandikuloo ñeenti sikk muy bëri bëgg-bëgg yàkkamti ak rëy ak kiñaan waaye maa ngi leen dénk ci ñeent na ngeen gàttal seeni bëgg-bëgg na ngeen di teey ci mbir yépp waaye na ngeen di laay biire seen mbokki julit waaye na ngeen wàcce seen bopp nangeen ngeen woyefal seen bopp sëriñ bi ne yéen sama nit na ngeen jëfe sama ndénkaan lii na ngeen jëfe sama kàddu yi na ngeen génne bëgg àddina ci seen xol ndax kat bu ngeen ko defee da ngeen noppalu àddina ak alaaxira si mi na ngeen moytandiku njëstal na ngeen moytandiku nay waaye lépp lu ngeen di jëf ci jëf ju baax na ngeen ko nëbbu comme ni ngeen di nëbbee lu ngeen def ci jëf ju bon mu ne lépp loo xam ne dafa dox seen diggante topp yàlla sëriñ bi ne na ngeen sànni loola ne na lépp loo xam ne da leen di ñoddi ci topp yàlla na ngeen sàkku loola te bu leen bëgg bu leen mere kenn lu dul ne yàlla tax ngeen mere ko waaye bu leen bëgg kenn lu dul ne yàlla tax ngeen bëgg ko nee bu ngeen loola day da ngeen nekk nit ñoo xam ne suñu boroom gërëm na leen bëgg na leen kon rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa xinna azaba naar waltuf bina wa xawina wa kunnana wa hablana xusna alxitaami rabbana wa sallin ala nabi wa sallimi waqdi bi haajati kulli muslimin astaxfirullah li wa lakum wa lisaari muslimin إبليس إذ ناديته بيا ولي